bisimilah rahmaani rahim ah man de dañuy cant rek doole ci cant ndax ah, sëñ Abdul Ahad saa boo déggee ay kàddoom yàlla yéem la ci ka ci ab mayam yaakaar naa Sénégal ba mu daj ku ne xam na li ko yàlla defal ci kàddu goo xam ne na mu na muy gàtte noonu lay amee doole. ci dégg-dégg te kàddu bi dangay xam ne wax ji daanaka alxuraan la wax ji dëgg joo xam ne du lu nuy teggi te na muy koy génnee ak na muy waxee na muy dalee da ngay jàpp ne jamono tënku ko kàddu la goo xam ne saa boo ko déggee dégg dégg may ñaan sunu borom te loolu laa bind ne maa ngi ñaan yàlla Sénégal senegale yi Afrique bañ a ñàkk xam-xam boobu yàlla nañu yàlla dimbale ba sénégalais yi dégg ko di ko comprendre ak di ko jëfe ndax kat xam-xam mooy defar nit nit ku ne am na xel ku ne mën nga sàkki pexe waaye xam-xam mooy li wóor xam-xam mooy dégg mënuñu liggéey ci dudul xam-xam mënuñu jaamu yàlla ci dudul xam-xam mënuñu tabax réew ci dudul xam-xam mënuñu def économie mënuñu def planification mënuñu def lenn ci lu dul xam-xam te xam-xam biñ gën bi gën a féete kaw mooy xam-xam bi nga xam ne sunu borom moo koy jagleel ay jaamam. donc yàlla nañu yàlla taas ci exemple bi mooy exemple dëggu xam àdduna xam alaaxira xam sa bopp. xam li la war xam sa digganteeg sa borom xam sa digganteeg say morom ànd ceeg fulla ak dogu gu mat sëkk sëñ Abdoul Ahad loolu la ñu jàngal yàlla na yàlla taas Sénégal ci barkeem. yàlla na njàngaleem doon loo xam ne day baawaan ba dugg suñu école yi ñu nandal ci suñu doom yi ba kenn ku ci wax rek wala nga dox nga xam ne kii kat am na lu mu cof ci njàngale mu di mu doon ndimbalam yàlla na ko yàlla def ci barke bés bi